waaw bu ñu seetloo tey ci li ñu mën a jàpp ci tension mën nañ jàpp ne euh, tension doon na feebar euh, ci feebar yi gën a law ci réew mi euh, boo jëlee adulte yi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci Sénégal ñetti ñoo ci gis kenn ki amee na tension waaye du loolu rek parce que ni mu bëree noonu la grave tamit parce que boo seetee feebar yu bëri feebar yu mel ni AVC feebar yu mel ni maladie rénale maanaam feebaru roñon boo lu mel ni insuffisance cardiaque wala crise cardiaque yooyu yëpp mën nañu jàpp ne hypertension mooy li njëkk ci li koy indi ci ci ci réew mi donc hypertension bëri na garaaw na mais hypertension bi malheureusement euh, ni ñu ko fajee ak nu ñu ko contrôler euh, ba tey des na parce que mun nañu jàpp ne euh, boo jëlee ñu fukki nit yu amee tension fii ci Sénégal kenn ki rek moom la ñu contrôler ñu bëri sax ci ñi amee tension xamuñu sax ne amee nañu tension donc moo tax défi yi bëri waaye njort nañ ne buñ si ñëpp jàppee dina tane bu baax a baax. waaw thème bi buñ ko seetee dafay mel ni thème bu xaw a yomb euh, jàpp waaye euh, bu am solo la mooy naka ngay nattee sa tension natt ko ci anam yu gënee te mu doon loo xam ne li benn njumte du ci am parce que euh, balaa ngay wax ne nit yi dafa am am nit dafa amee tension da nga war a am da nga war a am appareil yu baax am tamit. Euh, jumtukaay yoo xam ne yii dafa mucc ayib et surtout surtout technique bi euh, doon technique boo xam ne bi du am benn njuumte parce que bu fekkee ne jàpp nañu tey ne Sénégal xëy na ñaari millions yu nit amee nañu tension bu fekkee ne jum nañu sax ci juróomi téeméeri nit juróomi téeméeri million euh, nit astafurlah mun nañ gis ne loolu mun na indi ay gàllankoor yu bëri bu fekkee ne dama nekk kii kat am nañu tension te amewu ko maa ngi faj koo xam ne kii soxlawul loo xam ne dañ koy dégg te xam nañu bu baax ne loolu euh, dina am ay répercussions psychologiques euh, dépense yu bëri lay doon te loolu boo ko xaymaa ci budget sax ci réew mi euh, luy diis lay nar a doon. ci beneen fànn bi mën nañu jàpp ne tamit bu fekkee ne nit ki ni ma nappee tension da dafa amee tension te ma xeeb li ma am ba ma sous-estimer ko loolu tamit maa ngi bàyyi nit mu amee feebar. te xame xamu ko donc complication yi ma wax yëpp doon na complication yoo xam ne mun na koo dab parce que ni ma ko nattee woon loolu boobu moo baaxul te ni ñu dañuy jàpp ne lu yomb na mais euh, mun na yomb sax ndax ñëpp ñëpp war nañ ko jàng euh, du sax faj paquet yi rek parce que tey jii nii li ñu bëgg ñun mooy population seen bopp xam ni ñuy nattee seen tension mais il faut que ñu am tension mètre yoo xam ne yi moom la ñu valider et puis ñu am aussi Euh, technique boo xam ne moom la ñu validé loolu yëpp ku ko jàng war na koo mun a xam mais du lu yomb te dañ ko dañ ci war a farlu bu baax a baax a baax parce que boo am jo amee njumte foofu rek répercussions yi mun na doy waar. waaw Touba doon euh, dëkk bu dëkk bu sell boo xam ne bi daanaka euh, dëkk yi gën a am solo ci réew mi la d'abord génn Ndakaaru foog naa ne jot na ñu xam ne am na loo xam ne ni war nañ koo def ci biir réew bi beneen bi mooy. bu ñu xoolee tey ñu suñu collègue yi nekk Touba nit ñuy natt ak seen seen gëstu wane na Touba bokk na ci réew yi nga xam ne fa la tension bi gën a ëppee doole mais du sax euh, du rek euh, ëpp doole dafa doon loo xam ne ay tension hypertension yu sévère la ay yoo xam ne yi dafay graw parce que complication yi ñu ñuy gis euh, doon ay complication souvent dafay xaw a jéggi dayoo donc mais ba tey médecin yi fi nekk ak spécialiste yi si fi nekk bëriwuñ sax waaye ñu ngi def liggéey bu mucc ayib donc moo tax ñu ñëw fii pour euh, gis exemple Touba pour tasaare exemple Touba mais wane ne aussi euh, c'est vrai que euh, hypertension law na lool donc moo tax dañoo war a fagaru bu baax a baax a baax te tàmbale ko fii ci dëkk bi mais bu ñu seetee aussi exemple yi nga xam ne yi mooy ñi fi liggéeyee ñu ñu waxee bu fekkee ne bu fekkee ne jàng nañ fi ñun ñëpp ba tasaare ko ci réew mi foog naa ni ñun ñëpp mën nañu indil njëriñ donc ñu ñuy laaj ñaan ñëpp. Euh, rawatina ñi nga xam ne ñi am na ñu fanweeri at jëm kaw na nañu dem ñu nattal leen seen tension ndax am tension euh, mun mun na bañ a ànd ak bopp yu metti wala miir donc euh, tension mun na nekk ci yow ne teg boo ko bëggee boo xam ne da nga am tension da nga dem ñu nattal la ko loolu mooy tax tension bi bañ laa bett mais balaay loolu nga fagaru parce que fagaru bi nag mooy ñu moytu yenn comportement yi mooy yenn lekk yi te Touba tamit njort euh, nañ ne ci Sénégal yëpp waaye fii tamit foog naa ne xaw na ci fës lool xorom si bëri na euh, bernde yi xëy na am na lu muy indi euh, comportement yi dañ ko war a sàmm bu baax a baax et puis tàggat suñu yaram parce que loolu yëpp mooy tax ñu fagaru ba bañ a egg ci tension bu ñu eggee ci tension bi nañu dem ba ñu nattal ñu suñu tension xam fu ñu si toll fekkee ni nit ki amee na tension tamit mu dem ci kër docteur ñu jox ko paj bi mu war a am te euh, ci li ëpp nag faj moomu danga nga war a topp faj mi ci jiiru dund te loolu tamit suivi ak consultation yi waruñ ko bàyyi benn yoon dañ ko a topp ni mu war